na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 bismillahi irrahmani irrahim wattiini wa zaytuun wa tuuri siniin wa haada balad zamiin laqad xalaqna al insaana fi ahsani taqwiim summa radadnaahu asfala saafiliin illa alladina aamanu wa amilu saalihaat falahum ajrun gayru mamnuun wa maa yukadibuka ba'du biddiin alaysa allahu bi ahkamil haakimiin bismillahi irrahmani irrahim iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insaana min alaq iqra wa rabbuka al akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو مر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية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 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم man ya'mal misqaala sarratin xayra yarah wa man ya'mal misqaala darratin sharra yarah bismillahi rahmani rahim wal aadiyaati dabha wal muuriyaati qadha wal mughiiraati subha fa asarna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a inna l-insaana li rabbihi lakanuud wa innahu 'alaa sha'nihi lasahiid wa innahu li hubbil khayri lashadiid Allahu akbar Allahu akbar sami'a Allahu liman hamidah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 بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنقوث أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون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 allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum assalaamu aleykum bismillahi rahmaani rahim sadaqa allahu mawlana al azim wa ballaxa rasuluhu alkarim wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa xaaliquna wa raziquna wa mawlana min alshahidin allahuma taqabal minna xatma alquran wa tajawaz anna ma kaana fi tilawatihi min nasahwi wa nisyan faktubhu mina minna ala altamami walkamali walmuhadabi min kulli alhan faghfir lana ya rabbana ya sayyidana la tuaxisna ya mawlana suqna fadla man qara'ahu muaddiyan xaqahu maa al a'daai walqalbi wallisan wahab lana bihi alxayra walsaadata walbisharata walamaan wala taxtim lana bilcharri walchaqawati waldalaalati wa tuxyaan wa nabbihna qabla almanaya an nawmi alxaflati walkasalaan wa aminna min adabi alqabri wa min suali munkarin wa nakiri wa min akli diidaan وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان warzuqnaa warzuqnaa jiwaara jiwaara sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa akrimnaa bi liqaa'ika yaa dayyaan astajib duaana bi xaqi tawreeti walinjiili walzabuuri walfurqaan actina jamiica maa saalnaaka bih fi sirri wal aclaan wa zidna min fadlika alwaasici bi juudika wa karamika yaa raxmaanu yaa raxiim allahuma salli ala sayidina muhammadin saaxibi alshariicati walburhaan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 warham jamiica ummati sayyidina muhammadin bi xaqi alqur'aan allahumma jcal alqur'aana lana fi dunya qarina wa fi lqabri muunisa wa fi lqiyaamati shafiica wa cala alsiraati nuura wa ila aljannati rafiqan wa baynana wa bayna annaari sitran wa xijaaba wa ila alxayraati kulliha dalilan wa imaama bi fadlika wa juudika wa karamika ya akrama alakramin allahuma ahdina bi hidaayati alquran wa aafina bi inaayati alquran wa najjina min alniiraani bi karaamati alquran wa adxilna aljannata bi shafaati alquran warfac darajatina bi fadilati alquran wa kaffir canna sayyi'aatina bi tilaawati alquran yaa da alfadli wal ixsaan wa salla allahu ala sayyidina muhammadin wa aalihi altaahiriin ajmaciin allahuma ballig tawaaba maa qara'naa wa nuura maa talawnaa ila ruuxi sayidina muhammadin alayhi salaam wa ila arwaahi asxaabihi radiallahu anhum ajmain allahuma balliq tawaaba ma qara'naa wa nuura ma talawnaa ila ruuxi sayxina wasilatina ila rabbina cheikhna cheikh ahmad alxadim wa ila arwaaxi jamici alanbiyaai walawliyaai walmursalin wa ila arwaaxi aabaaina wa ummahaatina wa ixwaanina wa asdiqaaina wa asaatidatina wa mashaayixina xaasatan cheikhina alxadim radiallahu anhu wa ila arwaaxi jamii almuminina walmuminat walmuslimina walmuslimat alaxyaai minhum walamwaat ajmain amma wa ila jamii ashaabi alxayraati min almuminina walmuminat allahuma ansur man nasara addin واغذل من قذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين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 sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala wa sahabatihi ajmain wa man tabiahum bi imaanin wa islaamin wa ixsaanin ila yawmi diin mboolem bokki jullit bokki taaliba yi maa ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen jottale ab nuyoo ak cant goo xam ne day bàyyikoo ci cheikh Ahmed Badawi moom cheikh Mahamadul Fadil moom mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bu rëy bi di jëwriñu jàngukaay bu màgg bi di jàngukaayu cheikhuna cheikh Ahmadul Xadim wa radiyallahu taala anhu wa arda sëriñ Ahmadu di leen jotle nuyoo ak ziyaara ak cant ak ngërëm gu bàyyi ko ci cheikhuna cheikh Mahamadul Muntaqa xafizahullahu taala wa ñoo ngi ñaan suñu boroom yokk ko kàttan ba mboolem naal yi nga xam ne moom la bëgg liggéeyal Cheikhuna Cheikh Ahmadul waaye naal yi mu bëgg liggéeyal lislaam waaye naal yi nga xam ne moom la bëgg a liggéeyal réew mépp suñu borom tëbb ko kàttan ba mu yeggale yépp te mu fekke yépp te ñu ak ànd ak moom mbokk yi ñu ngi ci bërëb bu màgg di néegub yàlla waaye di jàkk joo xam ne mi ngi ci biir mu mujammaa cheikhi ahmadul xadim li tarbiya wa takwin di bërëbu jaamukaay boo xam ne sëriñ bi moo joxe woon ndigal joxoon ndigal doomam taalibim sëriñ cheikh moom sëriñ abdul hakim mu def ko fi ngir mu nekk bërëb boo xam ne mboolem ñiy jàng ci biir daar ji ak ñi fi liggéeyee ak mboolem dëkkandoo yi nga xam ne ñoo wër li farewoo fii di fi mën a ñëw di fi amal seeni i jaamu yàlla di fi dundal waxtu juróom waaye it di fi dundal ay jotaayu xam-xam waaye it bépp woote boo xam ne sëriñ bi woote na ko mu jëm ci alxuraan ba xasida it ñu koy taxawlee ci bërëb bii waaye bu koor ñëwee waxtu wi dong yi fi nekk it di def ay naafila yoo xam ne mbooloo mu bari ñoo koy teewee sëriñ bi nag wax ni kon mi ngi sant cant goo xam ne mi ngi koy tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoom la bokk liggéey bi ci biir daara ji tàmbalee ko ci sëriñ daara yi nga xam ni ñoom ñooy jàngal alxuraan ak mboolem tuut tànk yi nga xam ne ñoom lañuy jàngal waaye cant gi wéy ba yegg ci kilifa yi nga xam ne ñoo ko nekkal ci xismul majalis di seetu njàng ma ak jàngale mi ak mboolem dong yi nga xam ne ñoo fa nekk di jàng waaye cant gi wéy ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci njàngin mu kaw mi ñu leen jàngal ak ña fay jàng ñëpp sëriñ be nee na mi ngi leen di cant di leen gërëm waaye di leen le cant yu bàyyi ko ci Cheikh Mahamadul Muntaxa ak i ngërëmam ak i ñaanam sëriñ bi nag wax ne mi ngi beral ak cant bu baax a baax mbokki dëkkandoo yi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi dundal jàkk ji ci anam gi nga xamee ne moom la lislaam bëggee ku dundal jàkka mooy dafa def jaamu yàlla waaye dafa def jotaayi xam-xam waaye di sant mboolem waa majalis bi nga xam ne ñoom noo taxawee jàkk ji ci noddu ak la ci aju ci set setal ak di tëj ak tijji waaye di taxaw naafila yi di ko ànd ak ñenn ci sëriñ daara yi ak ñenn ci tout tànk yi nga xam ni bi ñu tàmbalee jàng yàggugut waaye yàlla def na ñott alxuraan ci bërëb bi ñoom ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay yi di ñaan ñu fekk ko at yu bëree bëri di leen wax ne bërëb bi dafa bokk ci bërëb yi nga xam ni lii tax ñuy taxawal jàkka lépp dañu ko fi amal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee Madina lim njëkk def mooy taxawal jàkka ndax jàkk moo nekkoon benn bërëb boo xam ni buñ dee jaamu yàlla fe la ñuy dajee waaye lépp lu ñuy waxtaane di ko nos di ko nocc mu jëm ci programme yi nga xamee ne moom la ñuy teg ngir mën a jàmbaaroog noonu lislaam yooyu yëpp ci jàkk lañ ko daan defee waaye bu ma saan di jàngale it daan woote ñëpp ñëw mu toog ci jàkk ji jàngal ñëpp moo tax jàkk ji bërëb la boo xam ne dañ fay amal waxtu juróom yi waaye di fay def nawaafil yi nga xam ne taraweex yi ñu def ci ramadaan waaye di fi amal ay jotaay xam-xam ci ay bés yu ne ak ay weer yu te ay woroomi xam-xam yu ràññeeku yu fasantu ko ci biir réew mi ak li ko wër di fi ñëw di fi joxe seen i xam-xam di fi jotale seen i xam-xam di fi jotale seenum njàngale waaye mu nekk bërëb boo xam ne it lépp lu sëriñ bi digle ci biir dëkk bi ci lu jëm ci njàngum alquran wala njàngum xasida wala tudd yàlla mboolem dëkkandoo yi dëkkee ci euh, gox bi ak mboolem tuut tànk yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daara ji dinañ daje fii dundal ndigalu sëriñ boobee kon nag sëriñ bi nee na mi ngi cant cant goo xam ni mi ngi tàmbalee ci biir daara ji ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi ba ci dëkkandoo yi ba ci mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci lu jege bërëb bi ak li ko wër te waxtu wu ne seen yitte mooy taxawu bërëb bi ak di fi ñëw di fi amal ay jaamu yàlla mboole mbokk yi daara ji dolliwaat kaddu cant ak ngërëm ci sëriñ Ahmad Badawi mi nga xam ne moom la Cheikh Amadou Mountakha jigal ci jiital ci liggéey bi nga xam ni képp ko xool aw doxalinam da nga xeeb saw doxalin soññaat sa bopp moom de kilifa la goo xam ne bi ko sëriñ bi jiit léegi léegi amutul jenn yitte joo xam ne dina ko doxal boppam waxtu wu ne yitteem jëpp xalaatam yëpp pexeem yëpp mi ngi ci liggéey Cheikh naa Cheikh Ahmad Khadim bi ak li koy jëm rek ram xëy di teel a xëy si tey guddee waaye demutut fenn mooy ki nga xam ne dafa dem ba waroon noppal dog di yeesal lax saayam waaye dog di yeesal waaye yeesalaat ak jaayanteem ci liggéey Cheikh na Cheikh Khadim bi kon nag mbokki daara jëpp ñu ngi koy amal ak cant ak ngërëm di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam ci liggéey bi te bu amee ndam mboolem ñu siqi liggéey bi am ndam Cheikh Mahamadul Muntaxa am ndam Cheikh na Cheikh Khadim am ndam waaye lislaam lépp lislaam bépp am am ndam yàlla nañu ko teewe at yu bëree bëri wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Faye naa